want. Yene gitelu sen sen rio mi TV. dal leen ak jàmm yéen a ko gis noonu kooku premier ministre la Ousmane Sonko tey jii nag demoon fa fecc Rufisque yéen a ko gis mu mel ne tey jii ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Rufisque yéen a gis euh, xale mag ndaw góor jigéen ñëpp ñu ngi génn di safoo ki nga xamee ne rek moom mooy premier ministre bu Sénégal bi nga xamee ne fu mu génnee rek ñëpp daal di koy topp. ki tey jii tombé ak 6 août 2024 moom mi nga xamante ne nag jamono yi moom moo jiite réew mi moom mooy premier ministre kii di nag président de la république ñoom ñaar kenn nag xàmmewu leen bañ ko bane Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye ndax nag fu Ousmane Sonko dem daanaka nekk bëti président rek la ko askan bi di xoolee mu mel ne kon jamono yi daal kon tey jii daal dinay génn nag. daal di nag utali foofe nag ca Rufisque mu mel ne kon ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy askan ba nag daal di nañuy eh, génn nag daal di koy teeru te tagal ko mu doon loo xame ne rek eh, doonul première fois ñu koy gis waaye mu mel ne kon moom fépp fu mu dem ci eh, Sénégal rek noonu lañ koy defee moom soon son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi nga xamee ne ni kii rek fan yi demoon na foofe ca Touba Mbacké foo sànni mbaatu ko daal di takk askan bi yëpp génn mu mel ne moom mi di première ministre bi noonu la demee fépp fu mu génn daal askan bi yëpp rek euh, dañu koy safoo bu baax a baax mu mel ne moom la askan bi euh, sopp moom ak ki nga xamante ne rek moom mooy président de la euh, république.